ngi tudd Ibou Cissé dëgg xar yàlla waaw juddoo fii yaroo fii terrain bi jege ñu loolu ñun ñëpp jeunesse bi. waaw lu ci jot a xew lu ñu jot a xew ñii lañ fi indi seen affaire bii njëkk nañ ñu indil mbalit. waxuñu wax nañ ba gis ñu benn autorité bu ko jëndi ñu ñëwaat fii démb fekk ci ni jeunes yi nga xam ne professionnel lañ bëgg ñu tere leen football fii ñeneen bii baa bu ñëwee fee lañ koy yóbbu. terrain mag bi ba mu rey ñaari xale kenn mënu ci dara ñu nag jeunesse dañ sonn. ñu bëggul ñu rey ku ci ne fii am na foo faroon mais tey du affaire de far affaire de xaar yàlla moo soxla jeunesse bi ñooy wane seen bopp defaluñu dara ñii di dee ci gaal bu nekkoon fii nii dégg nga boo yëppay dem ndax fii nag ñun amuñu dara lu dul fubal pour jeunes yi nekk ay professionnel Frédéric fii la génnee Cheikhou Kouyaté fii la génnee ñeneen ñeneen am na ñeneen ñoo xam ne ñoo kaabu dañu war a fël ay Adrien ñeneen ku lim juum ñun nag soxlawuñu politiciens dañuy nax ñoo ngi ndekk ñoo ngi añ léegi nag ñun jeunesse bi lañ soxla ñun ñii ñun nag lu ñu dese ñun léegi lu ñu bëggati suñu dëkk ñun ñooy fal ku ñuy teel xaar yàlla mm-hmm. ram muy gaaw rek. léegi na ba ñaari nit gaañu ci. waaw yéen tant que responsable yi nekk fii. waaw lan ngeen fas yéene def. ñun lu ñu bëgg. lu ñu bëgg état la ñuy woo. bu nekkee moom moo yor jeunesse bi. moo yor kaddu réew mi moo yor kaddu réew mi. nga ñëw fii wax ak waa xar yàlla falu fii jaar léegi xanaa léegi dina wax ñoo ngi nii bëgg a jaay si terrain bi bëgg a jaay suñu kër yi naar bi nee na moo ko moom yooyu yëpp waxu ci na ñëw dimbali ñu ay poto lamp yoo xam ne dëkku fi Medina la jëm ah, Medina daf ñu kenn ah, Bamba Fall daf ñu kenn ah, ana ko ci ñu tey nekk fii waaw matériel ni ko waxee Medina la jëm fii ak Medina sori na ñu ñëw teg ko fii te Medina tamit am na espace pour yéen lan moo waral ñu ñëw teg ko fii mais ñu ñoo amul fu la mais jeunesse bi màgg nañ de. responsabilité mairie bi la ñun ñëpp a yor suñu carte koo ci wax yor na ay cartam carte ante ñun nag ñun Macky lañ soxla na ñëw wax ak jeunesse xar yàlla bi hmm. waxuñu waxu keneen ñun Macky Sall woo na ñëw wax ak ñun est-ce que boobu ba léegi am na ay autorités lu dee kay di nga ñëw indi na nag affaire yooyu soxlawuñ ko. bëgguñu indee dee la nañ ci yàlla la yàlla xaar yi àjjana soxlawuñ ko. est-ce que bi affaire bi ba léegi suba ba léegi est-ce que am na ay autorité fi teg tànk ñoom lañ fi ñu dàq leen nañ leen ñu dàq ñoom ñoo dàq nañ leen ku leen juum politicien nañ fi du ma tur amul ñu soxla bugguñu leen ñun ñii leen gis ñun xam nga ñoo leen gis ñoom Bati Ndiaye ñoom Six ñoom Ibou Kane ñoom Cheikhou ñooñu la ngi ak jeunesse bi ak seen mbokk yi nekk ci ginnaaw waaw ñoom lañ gis waaw kon ñun soxla ñu keneen soxla ñu keneen xar yàlla la wax ci loolu ñun ci ñu yoon ba léegi ngi waaw ba léegi bagage saa ngi waaw te a foowee a footballé waaw ñu wax nañ li ñu war a wax ñoo ngi fii la ñuy toog suñu waxul dañuy dem xam nañ fu ñu war a jaar ñoom yëg nañ li léegi ñoo ngi déglu dañuy am ay njiit wax nañ ñu dañuy déglu xale yëpp déglu nañ lu ñu wax dañuy déglu sànq dañ doon dem taali mais wax nañu dañuy arrêté kon léegi ñoom nañ def li leen war oto fi jaar fii yëpp la ñuy baare oto yi fii day am circulation si xar yàlla bi la jaar di dem nañu wax ak ñun xar yàlla ñoo bëgg wane seen bopp dañ sonn booy dañ sonn waaw dimbali ñun nit yi. politicien yi politicien yi yéen a wuñ ñu jàmm na xar rek lañ fiy ñëw. waaw dëkk fii si keppaaru terrain bi xar yàlla. waaw ce que war nañu wax lu xew ci terrain bi xar bi fii tey li xew si terrain bi daanaka lenn la ñun jeune su xar yàlla bi ñu teg fii di saraan tey terrain bi beneen weneen waay yu jóge beneen gox jël ay bagage am ñëw teg ko fii ci terrain bi ba mu jur fi ay loraange ñun loolu loolu lañ dul nangu tey te duñ ko nangu ëllëg loraange jël faat fi ay bakkan ay xale yu ndaw ñaari xale yu ndaw ñaar ñi mu faat leen ñaari beneen xale bi ñaari tànk yi damm ñun loolu lañ dul seetaan te fii ñun jeunesse xar yàlla amuñu lu dul lii bañ ba léegi terrain bi lañ am amuñu fenn fu ñu fooyee wulul terrain bi ñun terrain bi ñoom bu ñu ko mënul fonkal ñu ñu fonkal suñu boppu terrain bi te terrain bi dinañ ci taxaw temb incha allah. ah oui. liñ fi nu mu fi teg ay ay poto la pour poto lampe pour poto lampe pour courant la lii la lañ fi teg poto lampe pour courant moom lañ fi teg jëlee ko nee nañ pour Médina la. ñu bàyyi Médina am na espace foofu am na lépp ñu bàyyi Médina ñëw andi ko suñu terrain bi comme parce que ñu lañ yëpp ñun ñooy mbaam yi ñun ñooy vaurien ñun ñoo ñun ñun ñoo tekkiwul dara ba mu jural ñu loraange tey loolu loolu lañ dul nangu benn ko teg tey. léegi lan ngeen fas yéene def. lii am fii tey. lii nii luñ fas yéene def. wax waaw fa waxtaan nañ si ak ñoom ba pare. 24 heures lañ leen may ñu dindi ko bu ñu ñëwul dindi ko na ñun ñu def suñuy pexe bopp voilà dinañ ko dindi si nii wala ñu dindi ko si naa voilà fa lañ yem si tali bi nag luñ ci bañul ñun bañu ñu ko si ah, barke Serigne Touba bilaay walaay amul ciy taw waaw lii ba léegi ay autorité ñëw nañ ba wax wax ak yéen waaw fii ay autorité ñëw nañ autorité yoo xamante kenn mosu leen gis ba maire bi ñëw na ñun ñuy juddoo fii màggee fii ñun ñu gis maire bi tey lañ laay tey gis maire bi pour la première fois ñu ne maire baa ngi nii loolu du yoon. ñëw na fii commencé wax ay patati patati may ñu ko sax après lu mu mujjee wax dañ ko wax na dem yoonam yuuxoo ko mu dem ndaxte amuluñu benn njëriñ ñoom fii seen bopp lañ fi nekkal nekkaluñu fi jeunesse bi ñun nag jeunesse bi comme que ñoom seen bopp lañ fi nekkal ñun dañuy taxaw teem waa gérer suñu bopp voilà ñu loolu lañ wax fii. aman man Issa laa tudd sant Diallo. ñun xaar yàlla lañ dëkk fii la ñuy yeewoo fii lañ juddoo fii lañ yaroo fii lañ màggee man koñ bii laa dëkk fii nii fii nii laa juddoo koñ bii nii laa dëkk kon xam nga kon ci keppaaru terrain bi laa dëkk mais terrain bi fii lu ne la gars yi ko fi doon teg ñun ñun ñoo xeex fii nii ba fii mel nii fii bu setee tey ñun ñoo tax est-ce que comprendre nga Père Seck ñu ngi koy bu baax parce que duñ ko rendre hommage sax duñ ko rendre hommage que Père Seck terrain bi tey bu melee nii tey moom moo tax tey ak bàcc si ak Ibou Kane ak Six ñun ñoom ñoom la ñuy gis lu mun taam xaar yàlla ñoom la ñuy gis. politiciens yi amul luñ ñu benn njariñ comme ni ko Ibou Cissé waxee amul luñ ñu benn njëriñ. ñu jàmm yéen bu dara xewee rek la ñuy ñëw taxaw. bu nit dee bu dara xe bu dara bu dara bu dara xewee rek la ñuy ñëw taxaw. nit day feebar. sonn ci ñoom. ordonnance su 200000 duñ ko génne. yàlla yàlla jëlee la fi ñu ñëw taxaw indi 1 million. waa jafe ay saaku ceeb loolu mooy lan. Macky Sall bu dee jeunesse jeunesse jeunesse Sénégal moo ko ñor Macky Sall ñu ngi koy ñaan moom la ñuy woow nañu ñëw dimbali si mu jugee fi. moom ñu ñaan par force depuis jamono confinement ba léegi lii mi ngi fi. ñu eh, indil ñu fi lii démb lañ ko fi indil. ku ne wax na ñoom ñu lay tontu tontu bu vulgaire loolu lu nit mu taw ñu ne faale wuñ la bu subaa seen terrain bu mag bi lañ koy teg. fii terrain la fii la xale yi di fubalee dem nañ ba suñ terrain bi ñu bu ko jël mais ana état état anamu. ban njëriñ la ñu amal ci nu su xaar yàlla ban njëriñ la ñu amal ci nu su Grand Yoff ah ban njëriñ la ñu amal monsieur le maire bu ñu ko gisee rek daraa xew ah faale wuñ ko ah te ñun lu jënte wuñ ko ñun lu jënte wuñ ko ñun woowuñu ko sax ñun président la ñuy woow ba mu ñëwee dañ ko jaawale président la ñuy woow keneen président rek la ñuy woow fii am naa ay autorité mais ñooñu ñëpp ñun lijjantewuñu yéen ban app ngeen di jox autorité pour ñu jël si. 24 heures. ñun monsieur le président la woo comme ni ma la ko waxe rek. Macky Sall la ñuy woo mu dimbali ñu luy jóge fii. ñun loolu lañ soxla. bu dul loolu nag bu ñu jàppale wul ñu jëlee ko fi ñun seen su xaar yàlla pare nañu. xam nga li ma la wax pour jëlee ko fi. voilà soxlawuñu lenn lañ ñu fi jëlee lii. soxlawuñu benn politicien. ñun lépp ñu am ñu ngi koy faytinal suñ bopp terrain bi ñu ñëpp ay xale lañu xale yi saa yu fii la ñuy ñëw fuubale fii la ñuy fuubale ñetti terrain yi rek la ñu am comprendre nga nee nañ ni assainissement la mais nawet bi yëpp mbedd xaar yàlla bi dafa gis nañ ni nawet bi def tey mbeddu xaar yàlla yi ñun dañoo sonn parce que ñun lañ yëpp